xusbillah bismillah inna waliyallah nawwir fuaadi walisrax sadri waj al jihaadiya badri wale baarik fil banina wal banaat bi sooratin awul olaadiyat suxli bi jeexi wuluuda mundiba tali doon arifan aliya martaba mbokk jul i mbokki taalibe mbokki Sénégal waaye mbokki Bawol waaye mbokki Touba ak li ko wër ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di balu xaq ñu ngi leen di bal xaq di jiite ci nuyoo bi saaxibul fadila a seex Muhammadinil Muntaxa di ko ñaane yàlla mu yàgg filoo te ànd ak wér di ko wax ni ko fa waari sa nuuxan wa tamim saniinahu saxiixan muaafan jaabiral xasmi bil kasri yàlla na ko yàlla def ci moom moom Seex Axmadu Muntaxa waaye noonu itam lañu koy ñaanale mboolem xalifay seex yoonu mbir yëpp ak ñenu jaboote waaye noonu itam lañu koy ñaanale mboolem xolofaaw turux yi nekk ci réewum Sénégal gépp ak ñenu jaboote di ko ñaanal sunu waajur ca Touba Darou Khoudoss di Serigne Bassirou Dieng ñaan yàlla subhaanahu wa taala sàmm ko aar ko ko bi jaay seedi wujut ñaan gi ñaan si mu taxaal ñu koy ñaanal suñu waajur woowu suñu wëllëra suñu xarit boobu sunu sëriñ boobu nit yàlla kooku di Serigne Bassirou Dieng di siyaar nag mboolem ko ñu bàyyi xel auditeur auditrice yi bàyyi xel seen rajo Baol Medias FM 88.5 ñi ni topp ci rajo bi ñi ni topp ci internet facebook ak mboolem yi nga xam ni ci la nit ki di toppee doomu aadama ci wàllu média yëpp fu ngeen dem fekk na fa incha allahu rabbi bu ko defee rek nag mbokk yi di jaajëfal kilifa kër gi ñu nekk muy Serigne Mouhamadou Diop caat ñaan yàlla subhaanahu wa taala taxaw ko te téeñal ko yan bi ba fa ko bëgg a àggale mu àggale ko fa moom mbooleem nag personnel bi ne ci kër gi yëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu ak a siyaar ki ñu nekk ci technique bi muy sono walimata da ngi lay nuyu baax di la siyaar di siyaar mboolem personnel bi ne ci kër gi ko teg sa loxo nga jàlleel nu ko mbokk yi seen émission xew-xewu jamono del soit tey jii ci talaata ji ñaar fukk fan benn ci weeru mai 2024 ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit oustaz Mbaye Ndiaye Touba Firdawsi min al xaqi ila al hatta ataan yàq incha allah rabbi bu ko defee rek mbokk yi den jéem faram fàcce ci yenn ci yi xew ci jamono luñ ci man ak luñ ci mën a tënk njëkkante ak waxtu wi incha allah alhamdulillahi jasila ni'ma wasalaatu wasalaam ala rasuli rahma ma saairi aalihi wa ashaabi aimma wa actaai li qadimi rasuli alkaasi alqumma wa atlubu ridaahu kama asla umra umma mbokk seen émission xew-xewu jamono ñuy njëkk rek di tijjee di inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci koo xam ne jàmbaar la woon ci diine ji ci àddina bi ci réewam ci bëgg lislaam muy président era bi wàcc liggéey ngi koy ñaanal yàlla muy ibrahim moomu di ko ñaanal yàlla sayid ibrahim yàlla mi am te mënta sañ ñu ngi ñaan mu jéggal ko ay rëccëcam jéggal ko ay bàkkaaram tàbbal ko janatu firdawsi bi jaay seydi wujud mbokk yi mu nekkam koo xam ni ku amoon ak bañ la ku amoon ak bañ mais ku musa taxawu ngir lislaam ñu xam ñëpp tey gëstu xam na ni réew Iran xeex bii am ci diggante Israël ak Palestine taxawoon na ci taxawaay bu rëy taxawaay bu rafet taxawaay boo xam ni ëllëg fa mu jëm dee xam li mu doon taxaw ak li mu doon defaanar la ko ci sun borom nar a faye mbokk yi bu nu gisee toujours ñuy bëgg a dox ci dëgg àdduna dafa yëggu dafa gàtt tànk kon diir bi nga fi nekk lu mu gàtt gàtt sax saxal ci dëgg sax ci diine boo fi bàyyi ñu am ceew yaakaar waaye diir bi nga fiy def lu mu gàtt gàtt nga nekk ci njublang nekk ci naxa saxandang nekk ci lu la neex ngir lan ni àddina rek la àddina àddina rek la amul looy xalaat loola mbokk yi day tax boo dee du ñu am ceew rajaa du ñu am ceew yaakaar yàlla rek a xam nag lépp solo daal mooy nit ki la nekk ci njub na ci diine te dëggal te gëm ko te yàlla tax moom de am nañ ci moom yaakaar rafet nañ jot ci moom lool ngir taxaw gi mu doon taxaw diine ji waaye tam taxaw gi mu taxaw woon réewam waaye tam bañ gi mu bañan neen ba xeex bii am taxawaay bi ci taxaw ñëpp gis ko ñëpp xam ko yaakaar naa réewu jul moom laa gis mu taxaw taxaw boo xam ni wax naa ko fii ay émission ba tay wax leen ni président Iran rek lañ gis mu taxaw taxawaay boo xam ni bu ñu euh, fekkee ni tey euh, waa Égypte def nañ ko yeneen réew yi def ko fu mel ni tey réew mi nga xam ne toujours ma dal seen kaw ndax xamuñu ay lu ñu doon ndax ndax ndax yàccaaral guñ yàccaaral ak ak bàyyeeku gun bàyyeeku muy Arabie Saoudi bu ñu defan nii mu defan moom kon duñu du ba ci di nga réew réew yi réew yi nga xam sax duñu ay jullit sax gis naan fan yi ña ngi dal ci kaw Israël xam ni li nekk du dëgg ba ci Amérique yi ngi jubaay doon dal na ci seen kaw bi dee ba xam yëf ba ci France dal nañ ci seen kaw fu mu toll nga xam ne fu mu toll nii xam nañu lii ñu nekk du dëgg xam nañ ko te ñoom du ay julit léegi nag ñun ñi tudde suma ay jullit ñu ne yàcc ni yasar bàyyee ko rawat na euh, réew mi nga xam ne mooy Arabie Saoudite nga xam ne moom ni nu bàyyee ko sax da ngay tudd yàlla ñoom moom daara tekkiwuñ dara dara lañ tekkiwut bu ko defee di ko jaal mboolem kuy julit waaye mboolem ku bëgg sa réew waaye mboolem ku bëgg diine waaye mbooleem nag kuy bañkat ñu la koy jaal di ñaan yàlla subhaana wa taala ko jéggal ko lii rek moo tax nit ki boo fi nekkee amalal njariñ yàlla amalal njariñ société bi amalal njariñ sa diine waaye amalal njariñ addina ngir lan bu ëllëgee fi jógee sam nettali man rafet addina lu gàtt la day jàll du tus xëyaala aarid rek la innama dunia xëyaalu aarid xallama yabqa axbaaru tuxas ay jeene rek la du tus ak a néew lu des xanaa nii axbaar tuxas comme lii mu def moom loo def ci jaloore mooy ju baax ñu nettali ko loo def ci jaloore mooy ju bon ñu nettali ko loo fi defan mu baax mu bon ñu nettali ko kon nañu yàlla xiir ci ñu def lu baax mbokk yi mbokk yi foofu la doon tijjee mbokk yi ginnaaw loolu nag ñu ñu ñu ñu ñu jëm ci état bi fi nekk état bi fi nekk muy état Sénégal bii nga xam ni ñoom la ñuy jox réew mi luy tolloog weer jàpp ñaar weer dileen leen félicité di gën a ñaax ngeen gën a dëgëral seen taxawaay bu leen kenn xupp bu leen kenn napp da ngeen a am lu ngeen dëgmal te bëgg caa àgg askanu yaakaar leen ci ànd ak yéen yónnte baax na waaye man dama ci sonn est-ce que dafa defan loolu loolu li war ci yéen da a nekk li tax da ngeen a nekk ci réew mu naqaree yor réew mu naqaree jubbantee réew moo xam ne dëngal rek moo fi ëpp ñu jubal tuuti la ab kuréel bu néew ñoo jubal kuréel yi ci gën a bari dañuy dëngal ci côté boo dem nag bu dee ci côté nit yi àddina yi dëngalkat yi ñoo gën a bari léegi bu dee ci côté nit yi diine yi dëngalkat yi ñoo gën a bari léegi bu dee ci wàllu métier yi dëngalkat yi ñoo gën a bari léegi société yi dëngalkat yi ñoo gën a bari lépp loo dem rek da nga cay fekk dëngalkat ya ñoo ëpp jubalkat ya am réew bu tolloo foofu ñu dénk la ko da ngay def li yonent bi li sunu borom waxan atiwu llaha wa atiwu rasula wala tanaasaw fa tafsalu wa tasaba rihakum loolu da ngeen koy bañ il faut ngeen doon ñoo xam ni bu leen teqalikoo seen biir na ngeen lekk ak dànk jàppante ni kat yiw téye seen bopp xool li ngeen di bëgg ak li ngeen di bañ bu leen teqalikoo seen doole day manqué maam li nit yaakaar ci yéen day deñ bu leen umpante seen biir bu leen nëbbonte engagé wu leen ci li tax askani fal leen engagé wu leen ci li tax askani fal leen suñu yaakaar dafa dëgër ci yéen dañoo am ci yéen kóolute te it am nañu yaakaar ni ñu bëgg Sénégal jubi yéen yéen a mën a teg nit ñi gindi leen teg leen ci yoon ba bu ëllëgee ku fi dina fekk senegal jub na ba pare kooku day ñëw rek di mottali dem incha allah kon rek waay da wax jub jubal jubbanti mooy lu jafe lu jafe la am ñambar mënu ko ku gaaw dellu ginnaaw mënu ko koo xam bu nee mu daw mënu ko ku yaccaaral mënu ko ku gëmul dara mënu ko da am gëm-gëm da am fulla da ngay am fayda da ngay farlu ci li nga ne am taxawaay bañ a gees sa ginnaaw la feeg leer na leen li nekk askan wi bëgg nañ ko rek bul geesu keneen ndax nguur gii fi ñëwee dañu fee yàq lu bari dañu fee yàq lu bari mbokk yi nguur gi fi jóge dañu fee yàq lu bari jël suñu alal pasar pasaree ko ay milliards yàq ko fukki nit di liggéey ñu bari di yàq ñu liggéey mel ni ay golo yu nekk ci kaw tool toolu xaal wala toolu ñambi wala toolu gerte nga liggéey ba àggal jël say galo soob ca noonu la noonu lañ ak ñun ñoom ñii fi jóge léegi nag loolu am nañu naqar woo xam ne xamuñu fu ñu koy waxe li ñu xool ci yéen mooy ngeen ngeen ngeen ngeen jéggi benn baa boo xam ne baaxut rek ñu songu leen loolu rek la ñu xool ci yéen bu leen leen ko may bu leen leen ko may nii ñu yàq askan wi nii ñu tayyeloo nit ñi ñoom ñu fi jóge nii ñu tayyeloo nit ñi nii ñu tamale nit ñi sa lépp dox te doo liggéey loolu yi ngeen jóg ni yéen da ngeen koy jubbanti da ngeen koy jubal loolu du neex loolu du neex du neex ndax lu dëng ngir fekk lu yàqu ngir fekk lu jaxasoo ngir fekk réew moo xam ne lépp dëng li ëpp dafa dëng lépp dafa yàqu lépp dafa jaxasoo ngir bëgg li dëng ngeen jubati ko li yàqu ngeen defar ko li jaxasoo ngeen teqar ñi ko benn par benn loolu yombul mbokk yi kon rek waay président Basir yaag sa ministre ak ñi ngeen ku seqal lépp am leen gëm-gëm pas-pas bu kenn mën na ci lenn te it bu leen nekk ay yambar yoo xam nag jàmm baax na lool waaye nag bu leen woote jàmm ba far doyee di déedéet ku nekkul ci dëgg teg leen ko ci dëgg ku njublang wala mu tooñ na ko sistis teg fa ko war a teg waaw sistis bu maandu laa wax nag sistis bu maandu nañu ko teg fa ko war a teg nañu ko jubbanti tegi nga ci ñii ngeen njëkk di jàpp ñii ngeen war a njëkk a ci ci wàllu njub la nga lu mën a doo ci àdduna leen leen di xamee ci leen leen di weddee bis bu ngeen leen yolomalee bàyyi leen ci lu dara ñi ni lekk ñin ni ñoo lekk xaalis Sénégal dootuñ tiit dañu yaakaar fi ngeen jaarale ñii ngeen jàpp fa ngeen di jaar fa ngeen leen di jaarale kon ku ngeen fi jàpp lu ci war ci daan teg leen ko ko mooy dëgg lu ci justice war a daan na ko daan bu mu areer bu mu tiit na teg ci dëgg te yemale ci ñëpp nag ku mën a doon foo mën di bokk te lekkoo ci dëgg nan la ni duut baaraam ne lekkoo ci dëgg lum ca war am ci ay daan na ko am boo waree tëdd kaso na tëdd kaso boo waree fay alal na fay alal boo waree boo waree loolu mooy tax ñu lekk suñu alal te ñoom ñëpp tiit nañ fu mu toll nii waaye nag dañ doon seet di xool ba xam ñi ñi ngeen njëkk a jàpp wala wala ñi sës njëkk a jàpp seen nguur ñun di njëkk a jàpp noonu nu ñu jëflante ak ñoom bu ngeen jëflante ak ñoom ci lu nooy lu woyof loo xam du dara ñoom dootuñ tiit ñoom ñi xam ne ñoo fi nekkandi lekk suñu alal di def lu leen neex di gundaandaat di jël ay milliards di ko pasar pasaree di jël ay malati xaalis di ko maye ci lu dul dara askan yu bëgg a dee xiif mar tumuranke ñàkk luñ sol leneen ak leneen am ñu jël suñu alal ji mel ni Sénégal mooy réew mi gën a lis ci àdduna tapalekat yooyu njublankat yooyu saay-saay soosu su ngeen leen yee ñu dem wala ngeen yolomal ñii bu ëllëgee ñoom itam nañ naan kon lii dara nun mën a def dañ ci mën a génn kon na ngeen jël seen i matukaay na ngeen jël seen i matukaay na ngeen am seen fulla ak seen fayda na ngeen gëm mu def li ngeen def ci lu wér ceeb laa wax nag waxuma nag gëmmal dóor yi ak xëppal dóor yéeneen ñee doon wax nga xam ay tappale doon ak i caaga na ngeen xool li ngeen def laa wax te mu jub ngeen dëgër ca këcc kenn bañ ñu caa génne mooy dëgg ndax kii ngeen di roy muy sallallahu alayhi foofu la nekkoon. bi mu saxee ci li mu sax gëm li mu gëm taxaw fi mu taxaw waa Màkka dañ ko ni déet loolu du fi amee du fi amee mu ni leen fi amee du fi amee mu ni daf fi amee ba mujj ñu xatal ko bundu xataal ñi ko gëm bundu xataal ñi ko topp rey ñenn ñi di mbugal ñenn ñi waaye est-ce tax na yor salaasam benn yoon mu arrêté ci li mu waxoon amut ñi ko gëm tax nga dem kon rek waay na ngeen tegu ci yoon woo xam ne na ngeen teg yoonante sala sa mu doon seen royukaay lu ne waa Màkka def nañ ko lu ne wax nañ ko lu ne nañ ko waaye teewul dafa amoon ngëm bu mat sëkk ni yàllaa ko yónni te du ci arrière saxaaba ko toppoon gëm bu wér cëng ni te boobu kuréel bu néew la ci kaw suuf nekk ay julit ñuy rey seeni doom di rey seeni baay di rey seeni jabar seen kanam ah di leen teg ay xeeru mit ci kaw naaju tàng jër ñu teewul ñuy woote yàlla di tawxiid di di di di di di di kennal yàlla subhaanahu wa taala ba yàlla may leen loolee mu leen may ba tey diine lislaam tasaaru ci àdduna bi lu ko waral kenn kooke nga xam ne moo pas moo amoon pas-pas bu rëy muy yonent salaay salaam ak ña ko toppante amoon pas-pas bu rëy muy saxaaba yi ko njëkk a gëm noonee la lislaam di yaatoo di yaatoo waaye bu ñu yàccaaroon waaye ñu leen xëpp rek ñu daw waa makka àgg nañ ci ni yonent salaay salaam boo bëggee alal ñu jox la ba mu doy yéen laay waxal yéen waa nguur gu bees gi de boo bëggee alal ñu jox la ba soo bëggee suñu liggéey ñu xoolee ñi ci gën a rafet ñu ñu may la laaj ñu la ci dara soo bëggee am nguur ku nekkan nguur ku nekkan fii président wala ku nekkan tey am roi ñu summi garaat roi bi ñu ko takkalan takkal la ko yow te nga nekk roi yoonal sala salam te nga bàyyi lii ngay woote lii ñu sëmpul kër mu leen di bëgguma loolu ñu bundoxtaal ko xupp ko napp ko dem ba waajuram bi nga xam ne mooy bàyyi taxam di Abu Taalibin lu ne woon nañ ko moom itam ba Abu Taalib mujj xaw a tiit ñëw di waxtaan ak moom ne ko bu ma teg lu ma attanut ay sama doom bu lu ma attanut mbir maa ngi bëgg a métti ci man maa ngi bëgg a jaaxle waa Màkka xoolal ñu may fitnaale waaye yonent bi li mu doo dool tu tànk dafa dëgër fi mu dëgër allahu akbar mbokk yi dëgër ci dëgg bu la ñëpp doon bàyyi dëgër ci rek ay neen kay la ñuy wax waaye dëgg kara bi nga xamee ni bàyyi taxaw boobu ko doon défendre ba tax waa màkk ñi mun ko engagé ñi munoo daal ci kawam wàcc na ab liggéey Xadija mi woon soxnaam wàcc ab liggéey est-ce que tax na yorante bi reculé benn yoon mës ta reculé allahu akbar allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam mës ta dañ ko dafa dafa dafa dafa métti woon ci moom ba ko amul xusni atum njàqare atum tiit atum jafe-jafe ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax Abu Taalib mi doon aar ci saahir nekkoon bàyyi taxam wàcc rab la géey Khadija mi yoon soxnaam bëgg ko lool jël alalam jox ko kenn ñi mu ko da Khadija dafa boroon alal te dafa bokkoon ci askan wu riis bokk na ci ñu doon defaana yoon ti moom tam tax dëgg dëgg am na lu daan seet sax léeg-léeg ngir Khadija am na lu daan seet ngir Abu Taalib mosu leen a nangoo jébbal Muhammad ñuy jëfe ci moom kawam ñoom ñaar yëpp ñu bokk men at mu wàcc ab mu ni naa dem ci Taayif ndax Taayif sooy mbokk lan samay ndijaay lan su ma fa demee xëy na ndax yàlla leen ma jàppale ci liggéey bi may liggéey ak woote bi may woote ne yàlla kenn la ak yónni gi ma yàlla yónni may ak yonantu xanaa waa taayif dina jàppale ba mu dee waa taayif di ko sànni ay xeer yebal jigéen ñaa gone yaa ak dof ya ñu koy sànni xeer ba kara deretam yi day yool ci boppam bi di jaar ci mbagg meeg biir beeg fépp ba yaram lépp loo xoo deret lay doon moom sallallahu alayhi wa sallam est-ce que tax na mu yokkat est-ce que tax na mu areer est-ce que tax na mu jébbal ma am yëfar yi kon fii ngeen nekk ni ngeen fi nekk te gëm seen bopp te am fulla ak fayda xam ne askan wee leen fal ma sàmba falu leen ma demba falu leen benn parti falu leen askanu senegal ñoo leen doyloo teg leen ci yoon wi ni leen dem leen doxal leen ñeg seen ginnaaw gëm leen seen bopp rek kon yéen lañ àndal ndax dëgg gii ngeen woote ak jubbante gii ngeen woote ak jubal gii ngeen woote te yéen a ca ba tey nag kon na ngeen gën a feddali seen laxasaay bu leen gestu ndax li ngeen woote daa metti ko ma sa woote rek dégg nga lu ne lu bon lu ne wax nañ la ko lu ñaaw lu ne wax nañ la ko lu naqar ne wax nañ la ko waaye da ngay gëmm gumba tëx lu nekk ca sallallahu alayhi wa sallam àgg na ci bi ko waa Taayif sànnee yooyu wax ko yu bon yooyu lu max toog ci ron genn garab ni allahuma inni asqu du'fa quwwati wa qillatu hayrati yàlla amul ku may sàkku ndimbal ku may yaakaar ku dul yow maa ngi lay jàmbat sama lompoñ sama néew doole yow yàlla yow laa koy jàmbat maa ngi ni allahu akbar yàlla maa ngi ni yow rek laa koy jàmbat aw ma fexe nag aw ma tuuma menn fexe fu ma jëm xaw ma ko yow rek laa wéeru yow rek laa yaakaar yow rek laa tafu yàlla dimbali ma yàlla xettali ma nga xam ni bi Abu Taalib di dund Abu Taalib bi mu dund Abi Taalib bi mu dund àggale ci rek Mouhamed bàyyi lii ndax ma noppalu lu mu ko waxan wallahi la wadaw samsa fi yamini wal qamar ala yasaari ah ala atruka hada al amr ma atrukuhu aw halaka duunahu giñ ñaa ci yàlla bu ñu jëloon weer wi ko bu ñu jëloon jant bi teg ko sama ko joor jël weer teg ko sama côté càmmoñ ngir bëgg ma bàyyi lii may woote te sunu borom digal ma ko yow sama bàyyi tax yàlla wax dama ko bàyyi mukk dinaa ko woote ba àggale ko fa fa yàlla bëgg mu àggale ko fa wala dama ko fekke allahu akbar gorongoog gorongoog mbokk yi lool mooy fulla loolu mooy fayda mais ñu ni xaare nga daw ñu ni xaar nga tiit réewum Sénégal dafa naqaree yor réew mu naqaree yor la ndax ñu doon bañ dëgg ba tey tey lan gën a bañ dëgg tappalekat yi tey lan gën a mën a tappale te ñu ngi xool yoonu mën a jaar ba tappale gën a sax ñu bëgg tan lu lu bari leer nun mën a fexe ba dara du leer dañ koy jéem waaye nekk le ci li ngeen nekk rek dëggal leen rek luy dëgg daal na sax lu dul dëgg bale leen seen bale gu gi ngeen yor faxas leen bale leen wiccax leen na lépp wadd ci lu bon ak ay caay-caay tappale yeeg yu bon yi fi nekkoon ak yëpp na ngeen ko wax faxas ba mu set wicc ndax loolu day day day day naxal am réew loolu day xajamal am réew loolu day xajamal démocratie xam ngeen président bi fi jóge lii mu def dem ba fii jóge di jël ay accord di di di signé rek di signé rek yi fi yëfi tappale yooyu ba kañ may wax mu naa day day yokkal ministre yi dañoo war a am solde bu ñu demee ba ba jóge fi ah sa ministre lan lay doy ab yow bi lay jël nga dina def ministre yaa ngi nekkoon ci dara di liggéey buñ la follee doo dellu ca la nga nekkoon di liggéey nga liggéey moo tax kara bi jamaay dindee décret boobu sama xol dafa sedd bi fi jóge am ñoo xam ni mosu leen a yokkal benn sold mu dem bu fiy jóge signé yokkalee sold yu dul jeex te mosu leen koo defal moom ngir bëgg leen a jaxasee gouvernement bi di ñëw moo tax gouvernement bii fi jóge waraguñoo pare ci ñoom lépp lu war nañ leen ko delloo lépp lu war ci ñoom nañ leen ko delloo ndax ak réewande képp la nan jaay nit ñi réewande doole yaakaar bu bu asamaan si ñëw mën nañ koo téye tey nag yàlla xañ na ko ñu bëgg a xajamal day arrêté de xajamal gi ngeen di xajamal day arrêté day arrêté ñun xam ngeen ni politique wul waaye dañoo gis luy dëgg ñu di ko wax. kenn ku ci nekk lay faj sa aajo sa diggante laak la ngay yëngu waaye du policier moo la ko jox yaakaaruma leen waaye yaakaari réew mi lañ leen yaakaare yaakaari réew mi looloo tax ñu bëgg a ànd ak ci dëgg gi ngeen nekk takkalee ndax sa xam nag yi nga xam nag ñoo fi nekkoon lu leen neex def ba tey jii kenn koy def xumeet xumeet fu nekk di jéem a wax ak a ŋàññi nekku leen ci dara du ngeen tus dara doon leen ko mën leen a waxati ba askan wi dégg leen yéen yéen yéen yi nga xam ne yéenay nguur gee fi jóge mënu leen a wax lu mën a tee convaincre askan wi mënatu la nekk ndax tappale yi ngeen nekkoon caay-caay yi ngeen nekkoon yi ngeen doon def yaakaar yi xamuñu ko te ku wax ñu tëj ko sëqat sax boo ko defee ñu yóbbu la kaso loolu lépp tey jeex na tey xam nga benn suur dama ko commencé ci diggante bi nga xamee ni saxaaba yi yonent bi digal na leen ñu gàddaay jóge màkkatal mu karama jëm Éthiopie dama ko dama koo junjante jot ma cee leeral dëgg-dëgg waaye di nga discours booba boo xoolee rek mooy li am discours boobu jaaxu faro discours boo xoolee dëgg mooy li am mooy li am ndax xam nga ni kara bi nga xamee ni saxaaba yi dem nañu fekk fa najaas yi ci Égypte ci ci ci ci ci ci ci Éthiopie Éthiopie muy xabasa lañ leen wax boo xoolee day mel ni day mel ni nguur gi fi nekkoon ñooy ñooña rek ñoo yëhuti màkka yi rek ñooñu bañeen yonent bi rek nguur gi fi nekk danga nga da nga ko da ci ko utiliser rek ndax l'islam moom leen lu nekk da day ak taarix yaxudu naf soo waaw am taar day rëpp tew da day dikkat nga dikkat léegi nag kon léegi kon boo xoolee ñoom li ñu waxan moog lii gars yi di wax benn lan ñoom ñoom li ñu waxoon kare bi ñëwee ci najaas yi luñ ko wax dafa am ñu ñëw dafa am ay gone ay gone xilmaan xilmaan lañ baatu xilmaan lañ jëfandikoo xilmaanum sufaha boo Omar ibn As moo leen jiite woon boo duggagul ci lislaam xilmaan sufaha ay gone yu ndaw yoo xam ni danoo dese danoo réew danoo nekk suñu dëkk ca màkkatal mukarrama waaw est-ce ak lii nga xam ne moom la waa waa APR yi doon jox doon wax doon wax ñoom Ousmane Sonko wuutewul bañ ko ba gone yu réew lu ndar woowee wax naa ko fii kara am na fi laa woowee ba suur jamaa yaaw jàll te yow ba suuroo gën seen baay gën seen maam gën kun am ay ndaw lan ñoom waa Màkka ñoo wax de ñu ne yow yow yow Najaasi daa am ñu jóge su dëkk boobu yonent bi daa yebal ñoom Jaafar ñu dem gàddaay ndax boo tiis si métti na lool mu yabal ñenn ñu dem foofa ndax Najaasi moom bokkuñu woon diina mu ngi bokkoon ci diine chrétien waaye nag moom kenn dawul lor kenn ci moom ñëpp lay male woon mu leen dem leen foofa ñeneen saaba yi ak moom ñu des woon ci bàkkatal mukarram waa Màkka yi bi ñu bëggee jëliwaat ñooñu pour bëgg leen a mbugal mbugal yu métti bañ ba àgg fa luñ ko wax daa am ay ndaw yoo xam ni xilmaanu sufa ay ndaw yoo xam ne ñu réew lan ñu di lan ñoo xam ne dañoo bàyyi koo suñu dëkk màkkatal mukarrama ñëw fii fi yow ci ci ci ci ci ci Uh, Éthiopie ah waaye ñooñu kat yow nga bañ leen a téye lu lu lu li ñuy doon wax déglul wax jooju ak ak ñii leen doon wax Ousmane Sonko ñii dañ doon jaxase Ousmane Sonko ñu ak Serigne si naa ay gone yu réew yu gëmul Serigne ba Bassirou Diomaye toogee la weddi jooju wax kara ba ne asalaamaaleykum ci kër Cheikh Modou Mountakha nu mu def ñun murid yi sax léeg-léeg am na ñoo xam ne ñu duggaale seen daal ci kër ga ba ca weeru ngay doog a summi asalaamaaleykum la ca baab ba rek daal ay daalam mais lu ko tëyatul du ne nag sëñ Muntaxa boo xamoon li mu war a wax ak moom doo gis mu sigg mu ko jàkkaaru sëñ Muntaxa te yar boobu ci yaru mag njëkk ña la sëñ Tuubaa noonu la yaroon dafa bokk tegg ni taalibe doo sigg xool sa sëriñ ko jàkk foo toll kon ñoom lan noonu innahum xilmaan sufa ay gore la ñu réew yu dof joxuñ kenn cër ñoo ñëw fii ci ci ci Éthiopie bàyyi Màkka moom la gars yi doon wax ñoom ba sur ñamaa ñi waaye Bassirou Diomaye ñoom toogee weddi na loola ñu ne ko itam yëmu ci loolu waaye teqale lan mag ña ak ndaw ña loolu la gaa yi ñi loolu la gaa yi doon wax ñii di ñu ne ñu ne ñii gone yi doo nga leen topp amuñu kayit carte juddu sax amuñu ko bay am carte d'identité discours boobu booy xool day mel ni moo def sa Sénégal daal di ñu réew lan daal di ñoo xam ne sax agranti ni ko ñoo xam sax sa diine ji dañ koy ŋàññi diine ji ngay bokk muy diine chrétien dañ koy ŋàññi loolu ñii àggan nañ ci noonu la nag ñii dañuy ŋàññi diine di ŋàññi euh, sëriñ si nekk ay salafiste naa nga mag naa looyoo ñu tuumaale ko ñu daal di kon nag léegi nag ñun waa màkk waa màkk ka kilifa yi màkka ya ñoonu yabal pour nga jox leen ñu leen ñu boot leen màkka najaasi neen loolu nag du mën a am te laajuma leen ñoom itam lu leen tax a jóg lii ngeen wax yéen wax ngeen yéen waa màkka léegi nag ñoom it daa leen tontu loolu kilifa yi def kilifa bu ñaar amee problème da ngay laaj ñii laaj ñii wa in taifataani minal mu'miniina iqtatalu faslihu baynahuma kay ñaar kuréel bu na amee jafe-jafe jéem nee na defar seen diggante jéem nee na yëwanal waaye kenn ku ci ne daa war a wax bi joxee loolu ba pare ñu jox kàddu ga najaas ñu jox kàddu ga jaafar pour mu tontu li nga xam ni ñoom la yëfar yi màkk yi waxan ci gaa yooyu ci misaal bu doon jëma yi nga li nga xam ni ñoom la waa APR doon wax ci ñoom Ousmane Sonko ñoom ñi ak ñoom ba studio ak ñi leen topp li ñu wax ci ñoom ñu bon ñu yooyu ba leen ci sëriñ sax gëm ko leen ci sëriñ sax gëma nañ loolu leen ci mag ñi paa yi gëm nañ loolu leen ci meer sax gëma nañ loolu te woon du dëgg ñoom ñoo fi nekk di jëbal yi sëriñ ci yor seen alal fu leen neex dugal di taxawaalu di tambaambalu di pasar pasaree lu leen neex def ku wax ñu tëj la ba pare bëgg a jëbal yi sa ñee waaye ba jaxafar jëlee kaddu xam nga lu wax ma ngi mel ni tey nga ne nga jox Ousmane Sonko kaddu gi wala nga jox Bassirou Diomaye Faye kaddu gi ñu ne ayool malik eh yow buur bii di najaas yi mu ne ah, mu ne ko ñun day ay nit lañu yoo xam ni danoo yéewutan kenn danoo yéewutan inna qawmun jaahiluun allahu akbar inna qawmun ahla jaahiliya aw ñun kay ay nit lañu yoo xam ni danoo yéewutan lu ustaas doo ko def ci gone yi awali mata da leen a fekk ñoom ñëpp ñuy naaw ak leen ci mag ñi sax mu leen ni pëkk ni leen yeewu jot na sunu réew ndekete tubaab yi moomuñ ko ñoo ko moom allahu akbar lii la jaxafar wax de innaa ñu ne ah mu ne xawman ahla jaahiliya ay nit la ñoo xam dañoo deseen a yeewu comprendre ñu woon lu xew ci àddina allahu akbar naabudu asnaam dañoo toppat gaa yi rek lu ñu wax ñu def ko waa peer yi lañ toppat rek lu ñu wax ñu def ko lu ñu wax rek ñu def ko ñu ne napp rek bu élection ñëwee ñu nax ñu séddaluñu ay 2000 2000 ay 10 000 10 000 5000 5000 gañaal élection yi ci loolu lañ nekkoon wa nakulu maytata maanaam ñi xam ni tey ci misaal ñooy borom kartan yi ak borom doole yi di lekk ci kaw ñu amul doole mooy ñu am kartan di lekk ci kaw ñu amul kartan waaye wanati foes ñii fi nekk gaa yi wax de ci misaal nga jox discours bi Ousmane Sonko la Bassirou Diomaye ndax Jaafar mooy wax mu ne koy fi nekkoon bu njëkk danoo yëwutan am ku ñëw yeenu ñu nekkan ñoo xam itam dañoo toppan gaa yi rek xamuñu li xaw am ku ñëw xamal ko waaye ñu amoon doole ci ñu da lekk ci kaw ñu ñu amul doole waaye mu ci loolu daa def ay ñaaw téef yu bon yu ñaaw yu xisaw te kenn ko wax waaye mu ci loolu dem na ba ay mbokk sax dagg na suñu diggante am ñaata la fi gaa yi toogal ci nguur gi ñaata la fi def ba diggante yàq yàq diggante sax ñoo xam ñoo bokk benn sëriñ dootu tuddante ñoo xam ñoo bokk wenn waajur wenn waajuru góor dootu tuddante ngir raan ngir saltagun saltagun ci politique ñoom ñu fi jiitoon mënu ko waaye ba nekkee def loolu lépp nag li gën a bon ci ñun sax nag mooy dañ doon ñaawal ci wàllu dëkkandoo dëkkin wu ñaaw la doon dëkk ci yooyu jamono maanaam kenn ku ne di xeeb sa morom ak di wax sa morom lu bon ak lu ñaaw loolu fi affaire nekkoon di képp lañ fi nekkoon waa léegi nag waaw waaye ku lu xawee min ad-da'if ma ngi nii maam ñu am doole ci ñun di di di di di lekk ci kaw ñu amul doole biñ defee loolu nag hatta ba'asa Allahu ilayna rasulan minna yàlla yebal ci ñun ko xam ne ma ngi tudd Ousmane Sonko. wala yàlla yebal ci ñun koo xam ma ngi tudd Bassirou Diomaye Faye nasabu yaarifu nasaboo xam nan fi mu dëkk ma ngi dëkk njagañaaw gii xam baayam xam yaayam xam askanam wa sidqoo xam nan ak dëggalam moom Bassirou Diomaye moom ñu mu àndal waaye mu ni ci loolu nan ay waajuram xam nan ak maandoom xam nan ak fegoom dafa fegu du def lu ñaaw du ko wax kookee nag moo ñu woo ci ñu bàyyi lee ñu nekkoon ñu nuy nax ci ay dix mille ak deux ak cinq mille léegi nag tey mu andi ñu ci ni réew mi ñu ñëpp a ko bokk kenn warut ëppale sa morom ci dara dañ ko war a jubal dañ ko war a jubbanti dañ ko war a teg ci yoon kookoo ñu woo ñu gëm loolu ñu ndaw ñi procès boobu ñu gëm ko ne ci ngir bëgg bu ëllëgee ñu bàyyi fi suñu doom loo xam ne dañuy continuer rek mu dox bàyyi suñu sët loo xam ne dañuy continuer rek mu dox ñooñee nag lànk ni lii ngeen di woote du ngeen ko def ndax da ngeen di woote ak yeewte bu ngeen yeewoo du baax ci ñun lii dong la de wax ji de lii mooy discours bi rek benn la benn la ña bañan gaa yi yeew ñoo bañ ñi yeew ba tey ba yonent bi nekkee ci dëgg ña doon def lu baax nekk ca ña ko doon gàllankoor abi sufyaan ba tey ak ngëmam ñun ñun ñëpp la jaaxal abi sufyaan ba tey ak ngawam ñun ñëpp la jaaxal toog na ci jàkka ji bis yonent bi di xutba di xutba ba yàgg mu ni eh, di xalaat ci xelam na man daal nguur sii noonu def ba not ma ba ma gëm ko ba not ma daal man lu di ko xalaat ci xolam fa roq ko ca kaw waa jàkka njëkk ko yonent yi waaxu ba agsi ci moom ni ko yàlla moo mënal na tal allahu akbar moo tax dëgg rek kay dëgg ngëm ba tey ñëpp la jaaxal lu ma a xaw dugg na ci islam rek waaye ñëpp la jaaxal ndax fu mu mës a toog mooy xalaat nu yonent bi def ba not ko gaa yi nag noonu lay def kon loolu dafa mat a bàyyi xel kon dëggal leen xool leen fi ngeen jëm bu leen ragal bu leen tiit dañ leen a doyloo dañ leen a jox sunum réew ngeen gañee ko ci 54 pour cent téeméer boo jël juróom fukki nit ak ñeent ñoo ne ñun doy ngeen ñu loolu dara fayu ko mu ci Sénégal kon nag bu leen gestu teg leen seen tànk ci dëgg teg seen tànk ci njub te doxal te ngeen bàyyi noonu ñuy baw bàyyi leen ñuy baw bu leen leen lijjanti bu ngeen doxee ci dëgg yaakaar askan day gën a dëgër ci yéen bu ngeen dee wax dëgg yaakaar askan day gën a dëgër ci yéen bu ngeen dee doxal dëgg it yaakaar askan day gën a dëgër ci yéen waaye nag bu ngeen dee gestu ñi ku wax nga wokk ku wax nga xuri du ngeen liggéey li ngeen war a liggéey am leen fulla am leen fayda dëggalee seen bopp te gëm li ngeen nekk tey la ñu gën a ànd ak yéen ci dëgg ngeen nekk bis bu ngeen nee ba njëblaan nag ñu leen du baaraam leen du noonu 88 le 628 88 628 19 05 waaye 88 628 81 08 88 628 19 05 waaye 88 628 81 08 bu ko defee rek euh, ngeen jaar foofu incha allahu rabi euh, bu ko defee nga may tuuti soxna Walimata bu ko defee ñu daal di ubbi ligne bi rek ndax waxtu li ci des bëreetul incha allah may tuuti soxna Walimata incha allah. Vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez 88.5 FM. Baol Media 88.5 kàddu askan wi Baol Média 88.5 kàddu askan wi ca kaw. salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum. allo. waaw. ñu ngi siyaar bu baax. yàlla yàlla na Touba Pire Ndaw. waaw ah, sëñ Talla ñu ngi siyaar baax. na ngeen def ak coono yi. ñu ngi sant bi rek. ndeysaan alhamdulilah. kontaan nañ ci lool. ndax yàlla. Ah, di ñaan yàlla defal la jàmm. amin te ñu ko amin defal ko nguur gu bees gi ñu nekk. amin yaa ji rajo bi daa mel ni. Ah, di leen ñaanal jàmm ak xéewal. ah amin amin amin ah, da ngaa xaw a jege rajo nga génn. ndeysaan xam naa ni dafa mel ni ngelaw lee koy kii dafa ne ci ngelaw yaakaar naa ni dafa xaw a génn ci biti xam naa moo tax kii bi di kii waaye ñu ngi ko jaajëfal baax sëñ taaram bi nga moom foofu ci Touba si kàddu yi am na solo lool ndeysaan macha allah na nañu yàlla boole ñaan gi bi jëy Seydi Wujud kontaan nañ lool ci dugg bi sëñ taala yal yàlla taxaw teetu tànk boobu itam yàlla na ko yàlla barkeelal bi jëy Seydi Wujud def ko mu nekk mag te nekk magum lislaam bi jëy Seydi Wujud yàlla am na ko mën na ko sañ yàlla ko def te yàlla na nuru turandoom barke Seexul Xadiim jët jikko ya ak pas-pas ba ak dëgër ga barke Seexul Xadiim suñu yaakaar bu ko defee rek 88 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 a ànd ak ñu ci émission bi foofu ngay jaar 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 seen émission xew incha allah rabbi bu ko a jaar ci émission bi 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 foofu ngay jaar mën a ànd ak ñun ci émission bi incha allah rabbi soxna wari ma tax nga maytu son ndax benn Baol Média Baol Média 88 101.5 FM. Vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, soxna Walimata macha allah fa tabarakallah am na solo lool 88 de 628 1905 88 628 1905 wala 88 628 81 08 seen émission xew-xewu jamono ak seen bokk seen xarit Oustaz Mbaye Ndiaye Touba Firdawsi min al xaqi ila al xaqi xata ataan yàq incha allah rabbi bu ko defee rek ñu xam ni nit ki li muy sàkku bala caa am xaaya wala ximmatu majdiha maam njobbaxtal njobbaxtalu kaweeg loola li ñuy wax ximmatu majdi njobbaxtalu kaweeg loola bala koo am force mu rey bu am force mu rey bu am ndax isbiru inna laa ma saabiri il faut nga muñ ci métit yooyu il faut nga muñ ci jafe-jafe yooyu il faut nga muñ ci naqar yooyu ngir lan ngir ni daa am loo bëgg daa am foo bëgg a àggale sa réew daa am foo bëgg àggale sa population daa am foo bëgg a àggale sa askan te yaakaar la ci da muñ ay bang-bang muñ ay jafe-jafe ngir lan ngir réew mi am jàmm ngir réew mi am li bëgg ngir li nga doon bëgg ak li li la taxaw a jóg yoon nga mën ko am kon rikk waay doxal leen doxal leen te bu leen areer doxal leen te bu leen gestu doxal leen te war nit ñi dëgg ak njub rek yonent sala sam ma leen wax de digganteem ak ñii nga xam ne ñoom lay balan ci Éthiopie ba ñu defee seen discours boobee te far def ko ba ñu paree na jaa si da leen lii ngeen wax yéen mooy dëgg allahu akbar daal di wax ña waa màkka yi bale ni yéen mën a suma leen a jox ñii ngeen di leen yóbbu màkka mbokk yi kon rek am solo bu ci bëgg ku la bu ci bañ ku la xas nekk ci dëgg rek ndax daa am loo bëgg nga wax néewoon lima ma fekkoon damaa bëgg a ñëw doxal ko lii nga xam ni ci laa fekkoon réew mi nekk ci kët lu ci bari li ci ëpp lu noonu baaxul waaw lu baaxul nag nga bëgg koo jooyanti bëgg koo jubbanti waaye di nga dégg lu ne dafa jafe ndax jubbanti goo gis damm mën a caam loo jubbanti rek mën naa dem kon nag diggante diir boobu ngay jubbante rikkuwaay nekk ca rek ki xamul moom mooy wax lu ko neex waaye ki xam di xam ne diggante jubbanti ak jagal ak defar lu ne xañ na ci moo tax danay may temps danay may ab diir pour li nga doon wax ba xam yaa ngi ci yam déet moo tax ñu bari doo leen dégg ci nii réew mi doo xañ ciy wax fu toll nii te am nañ xalaat am nañ gis-gis mën nañoo wax xam nañ la ñuy wax waa dañuy xool mais suxum gay yi nga gis ñëpp nga xam ne tey buñ sañeen rek yow noo dëkk cim réew te bëggoo dara jag dëkk cim réew te boo sañeen ña ko jiite bis bu ne ñu fakkastalu ñun fii président Macky Sall lu mu mës def lu baax fii lañ taxaw ci rajo bokk lu mu mës a lu baax wala mu def ko lu baax fii lay taxaw émission moom lay tijjee sant ko ci mais réew moo ni ne tey da ngay bëgg muy salfaañoo rek di jaxasoo rek salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. incha baax. salaam naa ku baax kooku. Aziz Gueye. Aziz Gueye. waaw. ñu ngi lay siyaar ba Aziz. salaam alhamdulilah. Oustaz Mbaye. waaw. ñaari kaddu rek laa la bëgg a dolli te nga ma. bismillah. séeréer. Hmm. ak joola. bu ñu war kenn. akbar ndax yàlla. kon ku yebu. ndax yàlla. saxel daal rek. alhamdulilah kon ndax yàlla. dañuy ñaan ma turi. mu jig jig ñu. amiin. Aziz Gueye. Aziz Gueye waaw Aziz Gueye waaw. waaw uh-huh. kay waay Ndiaye. jërëjëf Gueye jërëjëf Gueye. jërëjëf Ndiaye jërëjëf Gueye. jërëjëf kontaan nañ lool. Ah, sëñ Aziz Gueye ñu ngi koy jaajëfal baax a baax a baax xam naa sax fàtte naa ñu koo laaj fu mu wootee ah, lu mën a xew rek ndeysaan wax loolu am solo mu ne séeréer ak joolaa duñ wor loolu laa dégg ci ay waxam ah, loolu ndax sant yàlla kon sant yàlla suñu yaakaar day gën a dëgër suñu yaakaar day gën a dëgër suñu xel gën a dal. kon sëñ Assis ñu ngi lay siyaar baax a baax am contentement baax ci yow yal yàlla taxaw sàmm la te barkeela la barkeela sa njaboot bi jëy Seydi Wujud waa ju am solo nga wax ñaari kàddu nga ngeen bataleel ñaari kàddu yu am solo la muy séeréer ak joolaa dañu war kenn allahu akbar ndax yàlla ndax yàlla ndax yàlla xam nga ñu ne ci réew mi te bëgg réew mi bari na soxna wari ma ta am réew da nga koy bëgg bul xool ma sàmba bul xool ma demba na réew mi jaral mais nekk ci réew te boo sañoon lépp salfaañoo loolu mooy la ngir nga bëgg mën a wax dem ci ci ci journal si xam ñu ci ëpp dara ñëru leen xaalis dong lañ gëm ñu jël seen bind di point di rek lu leen def bind loo xam dara ci dëgg kàcc yi neen ñu ci bari li ñu bind kàcc yi neen la alal rek a tax ñu di ko def ak bëgg seen surnoo jar ba kañ am réew dëgg koy lal am réew dëgg moo koy lal jubbanti nag ak jubal lu ne la cee xaj laa jub jubal jubanti lu ne xaj na ci ndax boo fekkee réew moo xam ne tappalee fa ëppan waru ja fa ay wara fa ëppan naxaatee fa ëppan toog mu dox fa ëppan yeneen ak yeneen fa ëppan tappalekat yi ci côté bépp wàllu mbay mii ñu ñuy wax nga xam ne tey jiw wi ak engrais bi yëpp nee nan engrais bi dañ koy jox soldat ñu séddale ko loolu fee mu saam baykat yi dinaa toog di xaar di xaar ba asamaan sébbi doo gis jiw ndekete jiw yi dem na ci ñenn ci borom barke yi moo xam muy borom barke ci nit yi wala borom barke ci nit yi aada ñu jël nangam ci ci ci nangam ci engrais di ñenn ñi dañ koy téye ba mu yàgg ñu jaayat ko ñenn ñi béyu sax ñu luy mbay loolu dafee mu saam tey kenn jóge fee ni loolu dootu am soldaar say jox ñu dugg ci terrain bi jox baykat yi seen engrais loolu dong jar na sant yàlla jox baykat yi seen engrais semence bi noonu ah lépp lu mën doon ñu bëgg koo te ci yoon lu jub xocc dafee mu saam fii nga daa jël ay collecteur war ko jox baykat yi léegi ci kilifa yi diine yi jël ko jaayee ko ay millions yu seer def seen poos léegi ci kilifa yi aada yi noonu ñoo xam ne xamuñu mbay xamuñu fu fu fu machine jëm xamuñu fu fu gerte di suulu xamuñu fu suuna di suulu xamuñ ci dara mais réewum tappalee fi nekkoon réewum tap naxaate loo neex def loo neex wax ah dóor kati marto yi mel ni tulleeg male koo mën a dóor sa morom dóor ñuy lekkante suñ kaw di lekkante suñ biir yóbbu leen ko ba ca ñoom ngeen leen seenu jiwoo engrais bii na ngeen ko yom ba ca ñoom ngeen seen engrais ku ci bokkul moom jaar ci loxoom lii dañ koo musaam nangami nit nga xam fii ñoo xam ne seen teraanga ji ñu am li ko bu heure bi musaa jot ci la seen teraanga commencé dugg ndax heure bi ci la daan détourné jiw wi heure bi la daan détourné engrais bi heure bi la daan détourné caractère yi loolu loolu sant yàlla baykat yi fu doon la def ci commencement rek nag pour war leen ne fii la bëgg a jëm ak yéen nga dem ci géej gi mool boo laaj képp kuy nitu géej sa xol sedd na licence bi bari mu annulé ko bàyyi licence yi nga xam ne moom doomi réew mi ñoo moom yor bato ak nangam nangam mën yéen liggéey leen ñi nga xam ne leen a bàyyi woon ñu nappe fu leen neex jël géej Sénégal yàq jën yi lu leen neex def te amuñu benn licence ñu ne arrêté leen ñu amoon ay licence waaye du ay doomi réew mi nar a yàq suñu géej ñu ne arrêté leen ko jar lii la baaxut waaye boo nekkee ci réew lu jag nga suul lu baax nga nga suul lu lu jëgul nga ni nga ni nga ni nga nga nga jël mbooru ko daali ko euh, reeteet yaakaar yaa ray ko la nga am réew da nga koy yéene jàmm ñun Macky Sall eeruñu ko woon bañuñu ko tey jii lañ ko gën a bëgg ndax ñu duñ bañ ab julit mais bu Moussa def lu baax danaa lu baax la bu defee lu bon ñu ne ko li nga def dara baaxu ci say mbokk day tiit ci yow dangay dem ñu lay yeb comme ku yebul séet émission ngay ñëw say mbokk seen xel lu daal ba kara ngay pare émission ñi la bëgg seen xel lu daal ba kara ngay pare émission ndax dañu xam ni lii ngay wax lu ne xañ na ci te man dem kasoog dem sama kër dong laay ne dëgg rek ka ma ñor amul ku ma ciy tiit amul ci ragal ci loolu laay dox mais li baax nañ ko wax li bon ñu xam daa bon mais politique politique ba ci lan politique politique politique ba boo gisee lu baax doo ko wax bàyyi leen li ngeen def bàyyi leen seen caaxaan yi daa wax caa ngeen di bàyyi ak tappale yi ak wuro ji du dëgg du yoon wax leen nit ñi dëgg wax leen nit ñi dëgg nit ki bu ko boo gisee mu commencé tegu ci yoon neen ma ngi ci yoon bu jàddalee nga ko eh du nii ndax juru la jëndu la moomu la Ousmane Sonko juru nu jënduñu Bassirou Diomaye Faye jurul nu jënduñu moomuñu ñoo ngi yéen doo nga ci am xamuñu ko xamuñu bu juutalee fii ñu ne ko li nga def du yoon mais yii mu commencé def moom normal du yoon te bàyyi ñi nga xam ne moom réew mu dox ñoru leen buñ jaaxle woon sax daw génn réew mi kooku loo koy toppee waxtu bi xam naa daa rek a jaana fi kon mooy rek bu ko defee ñu xool ndaw ñi ndaw ñi ay waay ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi toog leen ci réew mi toog leen nag yéen itam xoolal li nga déggati ñu ne ñoo ti barki démb ci gaal yi gaal gu defan téeméeri te ñaar fukk kenn xamul ci ñoom dara ñaar fukki fan yi mat na kenn déggu leen kenn xamul ci dara geneen gaal goo xam ne yam na la toll noonu moom itam nee na am na fukki fan ak juróom kenn déggu ci ñoom dara dooy fàtte ba xaw ma ndëkk ci ci réew yi tefes ne am na fa gaal xam ne nee nan gis fa gaal gu mag goo xam ne dañ koo gis mu ba ba yàq ba jeexte ay kalaani selee fan kenn xamul gaal gu mu ci ci gaal yooyu gisuñu ca kenn kon bu fekkee ñooñu téeméeri ñaar fukki ñoo dee kon fu ñu ak ñeneen ñi mu jërëm ay waa ji rikk waay nag waxtu yàlla yi nag doom yi salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga Saaf. waaw. ñu ngi tuub bu baax di jégalu rek di dugg si kër gi de. ah sëñ Cheikh ñu ngi siyaar baax kay. waaw ñu ngi tuub bu baax a baax waaye nag moom duñu woon ñu ngi déglu ñu ngi déglu moom. ah. ñu dañoo dugg waaye maanaam ñu émission benn réew si benn réew mi. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. maanaam nag yàlla ne dañu am erreur erreur crédit nag moom. ah ndeysaan wallaay ndeysaan. waaw tamit yàlla ngoo ah, jooju jàll ajuma. ngoo si ma doon jaay nag ma jaay lii la ma jaay lii la ma jaay yooyu ma crédit. ndeysaan wallaay ndeysaan na dem ba sori ko ndeysaan woote de mu ñàkk a jot kenn. ay waa ji ay waa ndeysaan mu waxtaan mu neex lool neex lool wax dëgg yàlla ci suñu li ma wax rek gars yëpp a ngi nuyu la siyaar rek waaw alhamdulilah alhamdulilah. di la jaajëf di nga sa tànk la foofu la. ndax yàlla ndax yàlla. ñu ngi lay ñaanal moom. ñaan nga am tam la amul yem kay. amiin amiin amiin. te yàlla yal doole sa doole sa doole bàyyi te yéen la. amiin te ñu ko. taxaw la. ndax sa mbéy sàmm la aar la. amiin te yàlla boole a ko amiin. lu ñu wax ñun lu ñu naan suñu taxaw yàlla na dal. amiin amiin ko. parce que sëñ Touba. amiin ñu ko. Eh, am na solo am na solo lool. baax na sëñ bi sëñ bi Diop a di ko ñoo ngi koy siyaar baax a baax sëñ Seex Coy sëñ Seex Coy fële ca kër sëñ Tuubaa gi ci Daaru Manaan ñoo ngi koy baax moom ku ko xam-xam ni fidèle auditeur la ku yàgg dugg ci émission yi te bëgg émission bi lool bu wootee bu wootewul du ko raw saa su ne waxtu heure bu ne ndeysaan day woote ndeysaan sëñ Seex kenn mënu laa fay yàlla yàlla fay yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla aar yaa ngi mboolem nga toogal foofu ci e, kër sëñ Tuubaa ci Daaru Manaan yàlla yàlla taxaw bi njëy seydi wujut bu ko defee rek mbokk yi yaakaar daal tënk foofu nag euh, ndax euh, mooy kaar lañuy lañ lañuy sësal rek ci lañuy jeexal tàkk donte xam naa ni sax fa tabaarakallah bu ko defee rek euh, li ma doon tëje daal mooy ndaw ñi ndaw ñi rikk waay rikk waay nañu arrêté nañu arrêté nañu arrêté awee eh, nañu arrêté arrêté leen gaal yi arrêté leen gaal yi waaw man luy tekki tekki mooy lan baatu tekki nga xam ngeen luy tekki yéen yéen parents yi nga xam itam da ngeen mel lu ko téyetul di wujjante ci alal looy wujje kii doom tukki na tabax na étage tabax na nangam sama doom daa war a tukki damaa war a jëndal oto daa war a tabax étage luy loolu tekki du alal tekki du alal tekki du alal tekki du étage tekki du immeuble tekki du ay oto tekki mooy nit ku nit ko xam li mu doon xam ki mu doon mu nekk ca ku ko gis warmaal ko jox ko cër te mu xam ki mu doon nag kooku mooy tekki li la yàlla digal nga nekk ca guddi ak bëccëg di liggéey bu baax nag pour noo mën a soutenir sa bopp soutenir sa njaboot jaamu yàlla bu wér nekk nit koo xam ni itam da am ak dal doon nit koo xam ni itam da ngay ubbi sa xel ci àddina ku di càmbar lu baree baree bari ci li tax yàlla andi la fi nga xam ni da fi nekk ci àddina te àddina taxu laa jóg kooku mooy ki tekki nekkal ci àddina di jëf li waa àddina yi dëf waaye nag bu tax a jog kooku mooy ki tekki mais lii ngeen gis du tekki dana leen seen bopp li yàlla rëdd sa jëm yi ku kulli xaali bala ngaa wàccib la géey ñu dina yóbbu dina suuli wallaahi dana agsi ci yow doomu aadama nag dañ koo bind ci ajal mu mu mu yàkkamti yàkkamti téy leen téy leen maa ngi dégg ci gaal ko koo xam ne dégg naa njabootam gépp la jël sol leen ci gaal ga léegi gaal gaa nga ne réer tey bu gaal ga euh, tey njaboot ga yëpp duñ dee téy leen nag ànd leen ak kum xel yéen faaraay yéen itam yéen ñi war a aayal yi bu ngeen di sabañ seen njaboot ga fu ñu koy waxee lii alali àddina koo jar alali àddina daa jar lii alali àddina jëru na innama xayaatu dunya laib wa lahun wasinatu wa tafaaxur baynakum wa takaasur fil amwaal wal awlaad ah ngeen jël àdduna rek def ko muy kër du noonu yow leen nag yéen itam nag ki war a tere bu jëy sabañ ak njabootam kon nu njaboot gi def nañu téye ndaw ñu dalal leen waxtaan ak ñoom xamal leen yéen tekki du loolu ñu yaakaar tekki du am ay alal tekki du am ay immeuble tekki du am ay oto nit a ngi tekki kenn def dara te woowu la kenn du xalaat dara te woowu la ak leneen ak leneen ñu yaatoo yaatu di nga lii rek moom mooy li mu war a def muy objectif am ci àdduna lii képp muy daan muy fexeel ba samp kër ah fexe ba mën a yor sa dépasse ah waaye itam fexe ba yàlla may la njaboot nga éduquer leen orienter leen teg leen ci yoonu lislaam lii mooy nit jeex na ñett yi la amulum ñeenteel ñett yi la amulum ñeenteel ñu ngi sinaale ñu heure bi jeex na bu ko defee rek. ñu xam ni kon euh, nañu bàyyi xel ci yooyu ma leen wax bu ko defee rek di jaajëfal ku nu doon bàyyi xel ak koo doon di siyaar baax a baax sëriñ Ibrahima Diop bu Mbàkke Bawol maa ngi baax a baax sëñ euh, taalalum bu Mbàkke Bawol waaye sëñ Bay Njaay rut dëkkaal nga ñun koo dégg baax moom di siyaar baax waa Touba Firdaws gépp ndeysaan ku ci mel ni sëñ Daam Sall ak aa këram sëñ Moussa Ndiaye ñu ko siyaar baax a baax sëñ Taara Mbeng mi dugg léegi ndeysaan ak sëñ Taara Seck ak sëñ Abdou Thiaw ñoom ñëpp ñu ngi lay siyaar sëñ Borgo Ndiaye ñu ngi koy siyaar a baax di siyaar képp ku ñu bàyyi xel foo ma di nekk rek yéen a a baax baax di siyaar bu baax nag euh, soxna noo fàtte mukk waaye Baye Aare Ndiaye maa ngi baax a baax a baax di képp ku yeewoo Touba Firdawsi bàyyiwuñu kenn di siyaar sama yaa Seyda boobu maa ngi ko baax a baax a baax moom Touba Firdawsi di siyaar képp ku bàyyi xel ak foo ma di nekk di leen xamal ne rek euh, ñu ngi leen di safoo ñu ngi leen di bàyyi xel yi Touba Firdawsi gépp nag ndax ñun amuñu lu Touba Firdawsi su ko defee rek di jaajëfal soxna Marème Kebe ñu ngi ko siyaar baax a baax a baax bopp tëli gumbaloo bopp tëli waaye itam soxna mooy faal ci bopp tëli ñu ko siyaar baax a baax di baax a baax itam soxna Jia Mbay sëñ Jibi Ndiaye ñu ngi ko siyaar baax ak soxna Kande baax a baax sëñ Moussa Ndiaye ko siyaar baax moom itam bopp tëli ak euh, ko ci mel ni euh, soxnaam soxna Faat Diop waaye sëñ Moussa Ndiaye mii di délégué quartier foofu ci Firdaws maa ngi ko siyaar moo ko euh, soxna Gay Faam soxna Yone Ndiaye ñu ngi di seet soxna Ami Diagne waaye noonu lay seet soxna Fatma Loum ñoom ñëpp ñu ngi baax a baax a baax bàyyiwuñu kenn waaye noonu itam laay seet soxna Ami Diaw soxna Seynabou Jabaay soxna Maam Jaara Diop soxna Sala Kamara ak borom këram sëñ Pape ñëpp ñu ngi baax nag waa teeru maam Seex soxna Caanaka ñu ko seet baax waaye nooy siyaare baax a baax itam ku ci mel ni soxna euh, Mbusoobe maa ngi di siyaar baax waa Mbusoobe euh, soxna euh, sa jenn maam bu sa jenn soxna maam bu sa jenn siyaar baax a baax di suñu xarit di suñu wëlëre di siyaar waajuram sëñ Ibrahima Jenn waaye nun daay siyaar a baax sëñ Moussa Silla ak soxnaam soxna Fatim Ñas waaye tamit siyaar sëñ Maga Saw foofu ci Mbusoobe waaye ndongal Jenne foofu ci Mbusoobe ñu ngi ko siyaar baax a baax képp ku yeewoo Mbusoobe rek bàyyuñ kenn nun daay siyaar baax nag waa péncu Mbaay Wadd soxna Nuux Ñang ñu ko siyaar baax a baax ak euh, soxna Yaaram Ñang ak sëñ Ali Ñang sëñ Amdi Ñang ñu ngi lay siyaar ko siyaar euh, maire Ayda Njaay foofu ci peccu baay maa ngi ko siyaar baax maire bu baax ndeysaan yaay de a baax di siyaar képp ku ñu bàyyi xel foofu ci pincu baay waat waaye waa bitigu jibi bàyyi loo maa ngi ko siyaar baax a baax ba a baax ñoom ñi ngi siyaar waaye di siyaar sëñ Baddoka foofu ci pincu baay waat ak soxnaam soxna Panka ñu ngi ko siyaar baax a a baax waaye noonu laay siyaar bu baax a baax sama nijaay sëriñ Bilal ak sëriñ euh, mm, sama nijaay sëriñ Bilal ka ak sëriñ Baabaka ñoom ñëpp maa ngi lay siyaar a baax a baax waaye noonu itam laay siyaara bu baax a baax sëñ Mbàkke ka sama nijaay waaye tam di siyaar bu baax naka ku ci mel ni itam mm, sëñ Mudu Yaasin ka sama goro ak mboolem waa Pintu Mbaye Wade waa Xayra de bitigulaat ñoom ñëpp ñu ngi lay baax a baax bàyyiwuñu kenn képp ku ñu bàyyi foo ma di nekk ña ngi lay siyaar lu bare bare bari soxna nday ñang guy ñànka maa ngi ko siyaar baax a baax a baax a baax waaye noonu lay siyaar soxna euh, awa ndaw waaye bu baax a baax a baax itam day sànn euh, ndonga la ca saam ndongal borom gaawaan gëj nañ ko dégg loolu ndeysaan ñu ngi ko siyaar baax ndongal si saam Sidi Jamil Fay maa ngi ko a a baax ndeysaan déggante lool euh, xam nga daanaka léeg di jën lu bari loolu mooy tax ñu ngi ko siyaar baax a baax a baax di siyaar sëñ bu Gede ñu ngi ko siyaar baax a baax moom itam ndeysaan waaye sëñ Moussa Diop bu jannatu kenn mënu koo fàtte moom itam ndeysaan bàyyi Moussa Diop maa ngi lay siyaar baax a baax waaye noonu lay siyaar bu baax a baax nag euh, ku mel ni tam euh, sëñ Garas Diop bu Ndaam kenn du ko fàtte waaye sëñ Omar Kabe fële ca Touba Firdawsi kenn du ko fàtte moom itam sëñ Mor Kan ñu ngi koy siyaar moom itam ci Touba Firdawsi ñoom Kan waaye noonu lay siyaar bu a baax euh, moom itam foofu ci Pulaaya saan kenn mën leen a fàtte yal yàlla sàmm aar taxaw leen bi jay seydi wujut ko defee rek kon euh, ma joxe garab yi te daal di jox soxna si mu daal di ànd ak yéen incha allah seen émission bi nga xam ni moo ci topp muy soxna walti ak ñi ñu koy seqal ñëpp soob yàlla bu ma nee 10 rek mooy daal di ñëw kon bu ko defee rek garab yi laay joxe waaye duma fàtte nag sëñ Mudu Bale maa ngi ko siyaar baax a baax siyaaral ma sëñ sëñ Sidi Mbàkke moom sëñ Saaliwu moom sëñ ma sàmba sëñ Mudu siyaaral sëñ Sidi mun sëñ ma sàmba moom sëñ Saaliwu mun sëñ Saaliwu moom sëñ ma sàmba sëñ Sidi Mbàkke maa ngi ko siyaar bu baax a baax a baax a baax bu baax sax waaye itam sëñ Mudu Bala maa ngi lay siyaar bu baax a baax suñu xarit suñu wëlëre ku bëgg émission bi may def ku ko bëgg waaw waaye nu daal siyaar suñu xaarim Njaay itam siyaaral ma ko baax a baax a baax bu ko defee rek kon ñu wax leen garab yi fi mu am muy garab yi kartan yi garab yi émori yi ak garab yi istma yi bu dee garab yi émori yi ma ngi des fële ca marsukaas foofu dong la des marsukaas dong la des bu dee garab yi estament itam jumaa ja rek la des bu dee àllay lu lay nag am na ci barab yëpp muy garab kattan yi moom barab yëpp na fa ndax euh, moom lañ mujj a liggéey moo tax te liñ ci liggéey moo ëpp fuuf liñ liggéey ca yee moo tax moom dañ ci liggéeyan loo xam ni fa tabaarkalla macha allah ndax li ko nit soxla moo tax buñ ko defutoon ba tey deen gën a sonal euh, ndax li ko soxla lay bari loolu moom àllay lu lay lii euh, guddi gi sama guddi la maay boroom mus xam la tudd mus xam la tudd al laylu layli guddi gi sama guddi la may borom jënd leen ko àq ji ngeen amee soxna yi sun borom man leen cee dimbali ndax wala hunna mislu si alayhinna bil ma'ruf wala rijaal daraja àq joo am ci kaw soxna si soxna si am na jutal noonu te luulii muy wàllu kawlal àq la joo amal soxna si boo ko joxul amee nga ko àq kon dem leen jëli al laylu layli mën na jëflante ak ñoom àq jooju mën leen a wàcc incha allahu rabbi da nga dem ci barab mu am boo demee ci marsukaas sëñ Moussa Sylla moo ko fa yor 77 la 77 448 01 99 Serigne Moussa Sylla marché Ocass ca Ndiobentaay ba am na garabu émori itam ku ko soxla nga dem foofa bu dee marché Daaru Manaana ki ko am foofu mooy Serigne Mbacke Madina 76 nga koy woo 682 88 92 76 682 88 92 Serigne Mbacke Madina tudd ma ngi ci ginnaaw pharmacie jonn boo demee itam garabu kattan yaa nga fa incha allahu da ngay woote nag bala ngay dem ñu wax la li muy jar moo gën nga dem ba àgg ñu doon ko wax ngay xaw a am jafe-jafe bu ko defee tam bu dee jumaa ja si Abdou Ahad Daraame moo ko fa yor wetu kër Sëñ Fallou rek boo fa demee da nga ko fekk moom itam da nga koy woo 77 698 72 71 77 698 72 71 si Abdou Ahad Daraame foofu ci jumaa yi Seexul Xadim ji bu ko defee itam ñi nga xam ni ñoo ko soxla fii ci rajo Baol Média Sëñ Fallou Fall ngir fi fekk bu ko defee itam da nga koy woo 77 039 56 103 77 039 56 103 sëñ Fallou Fall moo ko yor fii ci rajo Baol Média su ko defee bu dee itam euh, fële ca Touba Firdawsi ci bopp tali sëñ gumbaloo ngeen fay fekk da nga koy woo 76 849 56 44 76 849 56 44 sëñ gumbaloo ngay fekk ci bopp tali incha allah mooy itam garab yaa nga fa bu dee sama numéro bopp nag da nga may woo ci 76 397 75 60 76 397 75 60 soo ma wooyee jotoo ma envoyé ma vocal incha allahu rabi bu ko defee foofu la ñuy tënkee foofu la ñuy tëjee ngi numéro yi ma joxe nag ngir jëm yàlla ku soxla ci garab yi da ngay bàyyi ba suba nga doog leen a woo ndax itam mënuñu tëdd ba guddi nga di leen woo naa leen maa soxla ci garab yi te lu yàgg-yàgg doo ca dem ci guddi gi kon nag bu leen yàqal seen nelaw bàyyi leen ba ñu xëy nga woo leen incha allah ñu wax la ni garab yi li muy jar muy ëmëru yi muy kartan yi lu muy jar bu ko defee itam boo ko mënee jënd nga jënd ko soo ko mu nga xam loolu yàlla dogal ndax dama ko wàññi ba foofu la mën a yem gis naa ñuy jaayalu seer waaye nag man fii laa mën a yemale garab yi ndax itam damaa bëgg nit ñi faju te garab gi dalay traité di defar sa guddi te itam amul benn effet secondaire wallahi asim daa ku ko yàgg di jël doo màggataale néew kattan mukk ci àddina loolu moom amul sikk sàkk te day gën a réer sa awra dalay yokk ndoxu góor bu ko defee rek di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp soxna Walimata maa ngi lay sant a baax di am contentement bu baax a ma nekkaloon ci technique bi tey bu nee di itam yaakaar naa yaa naa yaay daal di ñëw yaa équipe bi nga àndal ngeen doxal lu am solo incha allah rabbi di jaajëfal kilifa kër gi Serigne Mamadou Diop Thiat di ko ñaan yàlla subhanahu wa taala euh, sàmm ko aar ko taxaw ko euh, euh, di ko ñaan yàlla daal mu taxaw ko baax a baax a baax a baax ku baax la ku ku woyof la sëñ Moussa Thiam maa ngi siyaar baax a baax ndeysaan émission ajuba bi moom laa koy àndal sëñ Fallou Fall sama xulóowaale sama jamaale moo maa a baax a baax Baye Cheikh Gayri Diall duñu ko fàtte ko fàtte mukk Baye Cheikh yàlla ko yàlla sàmm taxaw ko te yokk ko wér bu baax a baax a baax a baax ba mën a def seet ci activité am yàlla am na ko mën na ko sëñ màggat ba soxna màggat ba soxnaam ñoo ngi ko siyaar baax a baax sama sëriñ sama xarit sama soppe sëriñ Bassirou Dieng Touba euh, Daaru Xudóos fa lay tey sama siyaar sëñ Bassirou maa ngi lay siyaar ñaa ngi lay sàkku ci yow ñaan te di la ñaanal di sàkku ci yow ñaan di la siyaar siyaar mboolem njaboot gi di la wax ne namm naa la loolu sëñ Bassirou Dieng sama xarit sama soppe sama sëriñ sama lépp seen mbokk la woon seen xarit oustaz Mbaye Ndiaye Touba Firdawsi borom la fi nekkoon jógu fi ku ko sàkkoon na ko mag ña